te dañu ñëw tey si une nouvelle vidéo tey dañ leen wantee tey nag ngeen mën def ba changer seen mot de passe Facebook dafa am kenn ku ñu ko doon demandé mais tamit euh, lu yomb la ko na ngeen di def ba changer seen mot de passe Facebook comment changer son mot de passe Facebook loolu ba leen ko bëggee c'est facile da ngeen ñëw seen application supposons ngeen yor application like bi Facebook like maintenant dañuy dëkk dugg si Facebook like ñu wan leen. waaye gis ngeen bu ñu duggee nii exemple ci Facebook live suñ compte moo nekk nii quoi comme vous le gis ngeen boo leen ñëwee nii maintenant seen compte da ngeen di ñëw fii comme d'habitude trois points yi trois traits traits yi nekkee à droite ci kaw maintenant fa ngeen di cliquer boo leen fa cliquer maintenant nii lay mel gis ngeen léegi da di wàcc gis ngeen da ngeen di wàcc nii wàcc ba gis fii ñu defal leen paramétrage bi ngeen gis mu defal la paramétrage bi nii gis ngeen option paramétrage moo nekk nii maintenant fa la ñuy cliquer way léegi cliquer nañ paramétrage maintenant comme vous le voyez dañuy cliquer mu ñu information personnelle liñ bëgg def mu def information personnelle la quoi maintenant information personnelle les information personnelle comme vous le voyez suñ information personnelle ngi quoi mu nekk nom adresse email numéro de téléphone etc. ko changer adresse email fi numéro de téléphone seulement nom aussi fi koy vous faites que nom rek le la maintenant ci kaw ngay cliquer ci kaw defal nom gis vous avez def nom gis sama nom Papa maintenant fi vous cliquer modifier à gauche à droite du moins Vous fi modifier Vous cliquer maintenant maintenant vous cliquer non, automatiquement defal le prénom gis defal le deuxième nom deuxième prénom defal le nom mais deuxième prénom ça pas l'appel mais bu fekkee yow sa nom rek moo la intéressé moom nga bëgg a changé fii nii la si kaw prénom nga waxee de exemple nga ñëw fii nii gis nga papa moo fi nekk maintenant mën nañ ko supprimer ñu def ci leneen liñ si bëgg a def quoi gis nga exemple mu ci bëggoon def seen mobile TV nii rek laay def waaw gis nga exemple ma def seen mobile après ma def TV exemple nii ci suuf bu ko defee moo paree maintenant fii laay bës aperçu du changement aperçu du changement mais nag ngeen xam benn affaire. boo leen di changer Facebook amna yenn yo xam ne accepter comme ay caractère yi nga xam ay ay ay dièse ak ay étoiles yooyu noonu du ko accepté aussi tamit bindal na len fii nii message bo xam mu ngi ne len fi attention si vous changez votre nom sur Facebook vous ne pouvez vous ne pourrez plus le modifier pendant 60 jours mu ne ngeen def ndànk boo leen changer sen tur si Facebook do len ko meuna modifier. bu si dur bu tant que deful 60 jours doo leen ko mën a modifier waaw mu ne fii nii ajouter aucune majuscule ou ponctuation moom laa lay expliquer sànq mu ne inhabituel aucun caractère spécial ou aucun mot aléatoire après mu def euh, voir plus boo leen bëggee am information yi man ngeen ñëw fii ngeen dugg xool voir plus mais daal li ngeen war a xam mooy que boo leen changé tout seen turu Facebook 60 jours lay war a def deux mois lay def nga koy soog a mën a changé waat quoi et maintenant c'est ça euh, légui ci kaw mu may prénom bi maintenant euh, si souf si souf souf moom may nom bi quoi comme vous le voyez bu fekkee tour bi la ce tour cassé moy nom moy moy moy du moins moy prénom ce tour moom ngay def ci kaw légui sante bi mom mo nek nom ci souf mooy mooy dernière bi comme vous comme vous le voyez ci fi moy sante bi ci kaw moy prénom bi bu la nexé tam mën ngay ñew yok ci sen surnom et cetera mais dal ñen xam caractère ak yim leen wax non du ko accepté maintenant bo leen changer paré maintenant da ngay bu leen faté da ngay di bés leen defal aperçu du changement bo le defé aperçu du changement rek daf lay proposer deux deux qui deux forme de nom mën naa 60, sa sant indi sa prénom indi indi sa prénom parfois mën naa indi sa prénom jita sa sant maintenant yaay xol bu la arrangé rek nga sélectionner bo maintenant nga bës accepter le changement bo defé non, rek automatiquement si sa sa si sa tur changé na sa tur changé na j'espère que comprendre na ngeen ko wa bu fekkee application bi fii nii noonu lay fonctionner. maintenant ñu dem ci beneen facebook bu ko defee ñu wan leen ko oui c'est la même chose aussi tamit bu ñu ñëwaatee ci application facebook bii nii beneen facebook bi c'est la même chose gis ngeen léegi dañuy patiente mu dugg exemple bu ñu si duggee nii comme vous le voyez maintenant dañuy cliquer fii mu def trois traits yi mu nekk à droite nii fii trois traits yi dañuy cliquer bu buñ fi cliquer léegi dañuy wàcc gis ngeen fii nii bokkul ak bële maintenant bi da ngay wàcc ba ci suuf a fi mu lay defal déconnexion bi nii yéen a ngi gis paramétrage de confidentialité oui maintenant yéen a ngi gis ni paramétrage de confidentialité comme ça oui maintenant fi ngeen di cliquer boo leen cliquer fi maintenant da ngeen gis fii paramétrage paramétrage moo nekk nii maintenant waa comme vous le voyez gis ngeen paramétrage moo nekk nii maintenant paramétrage ngeen di cliquer yooyu boo leen bësee paramétrage gis ngeen information personnel moo nekk nii information personnel la li ñuy bëgg a def fi la nekk quoi oui maintenant bu ñu information personnelle waaye gis ngeen nom moo nekk ci kaw coordonnées mais maanaam sa numéro et cetera confirmation d'identité et mais yow comme que sa tour nga bëgg a changer moo la intéressé ci kaw non gis nga non fi ngay cliquer ñu patienter maintenant oui bi ñu cliqué non légui gis ngeen c'est la même chose comme lim ñu wanoon fële ci kaw prénom sa prénom nga fay def ci dernière bi non nga def fa sa sant maintenant bo paré nga def aperçu du changement bu ko défé nga accepter ben prénom bi ak non après nga def accepté euh, accepter le changement waaw mais nag ñu leen di wat bo leen changer sen tur dina def 2 mois ngeen amat option pour mën ko changer way te amé tamit ay caractère ay dièse ay yoy non du du nekk ci tur waaw ñoom duñ ko accepter légui loolu la j'espère que cette euh, astuce vous a plu ñu leen di wax ngeen abonné ci chaîne bi pour di mën a jot suñu vidéo ok merci